waxo gendarme bi maintien de waaye ay nit ngay dajale gannaaw bi nga génnee fii ay milice ñëpp gis ko kon Sénégal yëpp xam nañ fi violence bi nekk ku naafequl xam nga fu violence bi nekk